aleykum wa rahmatullah taala ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaro te nag mooy bés bi nga xam ni euh, ci laa fas yéene wax ak sénégalais yi dëgg ak sama àqulaay taala wax leen lépp li nga xam ni moo ma taxoon a jóg ak li ma def ak lama ci doon sentu ak lama ci am ak tay mo nek bés bi nga xamni ni ñi won dinañ xam lutax ñu mere ma bu fekkee ni lu ñu mer la ba légui ñu mer ko bu fekkee ni it mujj nañ comprendre li moma taxonu ñu jéggal mako bu fekkee ni it euh, bu expliqué naa lañ ba nga xam ne ba mu leer ci seen nopp ñu jàll ci leneen parce que du li nga xam ni mun nañ cee perdre suñu temps parce que focus 2024 la ñu wax ñu concentré wu ci komba bi man Mollah Morgun nag di leen xamal ni lu ma wax sama waxu démb mooy sama waxu tey man sama njébbal bu deen tey sëriñ lañ ñuy joxe njébbal man sama njébbal jox naa ko Ousmane Sonko loolu xooluma ci kenn adduna yëpp ak may déglu dama ne sama njébbal man jox naa ko Ousmane Sonko démb balaa tey bu doon tey dañuy wax naan taalibe dama naan man taalibe Ousmane Sonko laa ne la nit bu doon dañuy wax taalibe jàpp leen ni ab dofub taalibe Ousmane Sonko la ab dofub taalibe Ousmane Sonko maanaam mooy taalibe bu dof bi nga xam ni dafa toog du nangu ñu waxal dara sëriñam du nangu ñu koy jéemal du nangu ñu koy def dara lu ñaaw maanaam du ma taalibe bu silwiise dafa am taalibe yi silwiise am taalibe yi mbëkk di daanu am taalibe yi daanu jéll waaye am taalibe boo xam ni moom dof la bu laal sëriñ bi bu ko teg loxo bu ko jege day mbëkk di dóor di lépp lay def man taalibe Ousmane Sonko laa ci xeex bi loolu man dama ko jox sama njébbal man la jappel ma ab dofub sëñ bi rek bu tok di def ay mbiram bo len xamul rek neena ah dof bi defati na parce que dofub sëñ bi la parce que Ousmane Sonko lutax ma wax la loolu moy nit yi dañuy jébbalu ci ay sëriñ pour mu yobulen fan pour yomal xiyaam ñu dem aljana waye fi dañuy jébbalu ci yenn leader politique yi pour ñu defar ñu suñu aduna parce que demaguñ àjjana demaguñ àllaaxira sëriñ yi dañoo yaakaar ci ñoom ngir àllaaxira kon adduna bi dafa am ay homme politique yu ñu war a yaakaar ndax ñoo war a defar suñu adduna te ñun kenn lañ ci gis am ci moom yaakaar muy Ousmane Sonko ragaluñ ci dara tiituñu ci dara adduna yépp xamal nañ ñu ko ñu nekk ci nag di ko liggéey nekk ci di ci reyante daj nañ ci lu nekk ay doomu aadama sax gis nañ ñu xamal nañu di ñuy dellu naan Mollah li warul doon sa liggéey man ay rappeur gis nañ ma ne ma Mollah li warul doon sa liggéey da war a nekk ci digg bi waroo dem di farak Ousmane Sonko ba di ko woyal ba di mbëkk ak di def affaire yooyu man leen man te Ousmane Sonko aw ma ci aw ma ci to to xaw ma mbëggeel gi yàlla moo ko def forcé wu ma ko yàlla moo jël Ousmane Sonko def ko sama xol ma bëggu ko yàlla tax xaw ma lan la musuma nekk ak moom musuñu naanandoo ataaya mais yàlla moo jël Ousmane ko def ko sama xol loolu motax lumay def sax duma koy tay duma koy tay moy tiofel guma am ci mom la tiofel gu doy war guma am ci mom buguma ko laal buguma ko djegge ma taxaw nak te loolu ci yoon bi la ci yoon bi lama lama dabé yalla won ma ni nit nit gënu ko ma ñew nak ma tok fi ma tok ni kër gi ci sama kër goudi jot appel téléphone di nit ku xam ma xam ko tamit ci xeex ndax dafa ànd ak Ousmane Sonko kooku dafa ànd ak Ousmane Sonko xeexam yépp ci xeexal Ousmane Sonko la bu saa yi may def live mu may suivre di ma xool di partager samay vidéo di partager lépp lu may def def ci ay liggéey yu am solo ma koy gis muy partage te du ma woo du ko woo te xamante nañ ma toog fii sama kër guddi ci sama kaw lal jot appel téléphonique muy moom ñu jàmm sante mu ne ma mola ma ne ko waaw mu ne ma sa live yi ma ne ko waaw mu ne ma mi ngi yegg fépp ci àdduna ba pale ba day yëngu partout ma ne ko waaw loolu de xam naa ko mu ne ma est-ce que xam nga ni vidéo bi nga xam ni ñoom camp wu Macky Sall pare nañ ko pour ne moom la ñuy tegal Ousmane ko pour sànk ko vidéo boobu noonu gis naa ko ma ne ko gis foofu amul vidéo li may wax dafa leer mi ngi déglu de bu seede yàlla bu dul dëgg rek nay taxaw ne noo du dëgg waxul dëgg yéen ngi dégg mu ne ma muy mu ne ma yor nañ ab vidéo li indi vidéo bi nag mooy moom nu muy partagé samay vidéo dafa metti ñenn ci ñi nga xam ni ñoo nekk waa APR ñu ñu ñu ne ko Mollah yow da ngay déglu Mollah loolu lañ ko yow da ngay déglu Mollah di partager Mollah foo toll mu ne leen waaw Mollah dañoo bokk combat te dama dama ko xam quoi ñu ne ko waaw mais moom lan lay jàppee di def ay opération rëbb dëmm di saaga ñeneen ñi di waxal ñeneen ñi lu ñaaw di wax lépp moom est-ce que xam na Ousmane Sonko bi Ousmane Sonko yor nañ vidéo am fii mu ne la non non non vidéo moom mënu fa am kooku ne ko taalal sa portable boobu nekkul moom nekkul foofu kooku ne ko taalal sa portable mu taal portable am kooku won ko vidéo bi won ko vidéo nee na mu nee na des fois mu mu arrêté mu xëcc affaire bi di xool ay affaire yooyu quoi non mooy vidéo ñoom bu ñu préparé dinaa leen expliquer vidéo li ci nekk lépp lépp tout loolu moom ne vous inquiétez pas procès boobu moom buy bu bu dina am vidéo boobu duñ ko wane parce que c'est fini dama ko lépp laa mais dama leen di wax rek lu indi lu indi lu indi li ma def donc moom buñ ko waxee loolu nee na mu seetaan vidéo bi détail par détail expliqué ma lépp ma ne ah, mais vidéo amu fa de <laughs> dañoo monté seen vidéo <laughs> ay bandi salte lañ quoi parce que ne est que xam nga ni capitaine Touré ànd naag nday xadi ñu dem ba suite boote xooli caméra ya fekk ñoom Sidi Mohamed Mbaye yàq nañ caméra ya yàgg na capitaine Touré dem na ba suite boote xooli caméra ya ba mu xoolee caméra ya doxut moom ak nday xadi mu retourné diggante boobu ñu wax Ndiaye pour Ndiaye mu récupérer suite boote Ndiaye moom mooy ku ñu dénkoon mooy gardien ba moom mooy gérer ay luwaas njaay dàq nday xadi ak ay bagaasam tej suite boote ay bagaasu nday xadi nekk ci biir maa xam jàll jóg Frédéric Napel mii jóg ak ñeneen euh, jóg ñi nekk ci euh, gendarmerie bi ñoom Abdou Meng ñu dem suite boote yanun euh, aji Sarr yóbbu ko fa def fa seen film ñoom professionnellement ak ay caméra dem seen yoon du vidéo bu ngeen gis loolu noonu lu may wax nii ndànk rek musu leen koo gis ba leen ma raconté fait yi ba pare bu kenn imaginer vidéo boobu musu leen ko gis kenn musu koo gis musuma dégg lenn tarfatal ay ni ngeen wax ko lu nuroog vidéo boobu du li ngeen di gis fii nii ñoom lu ñu def bomb loolu nee naa leen def la ndànk rek naa leen wax lépp dama leen di wax nan la photo bi ñëwee lan la affaire yi ñëwee ndànk calmement bu ñu yàkkamti donc vous bu ma waxee li ma wax ne ma photo bi daf nañ seen vidéo vraiment expliquer détail par détail ma ne ko d'accord ok mu ne ma sax nee na boo mu jox la ko ko ah mu ma waaw ma ko waaw ok na ma jox vidéo bi na ma jox vidéo bi man dina ma arranger mu ma waaw nee bu mun na la jox ñu waxtaan man ak mu dem yoram coupé goudi gogou ma tok sama keur lolou c'était lundi lundi amna information gogou mi nek sama xel Mana ne ah video? am vidéo def nañ seen vidéo ba paré gaay naan ay ñi dem nañ Canada ak dem nañ ki fekk ñom paré nañ ba tek ah, d'accord ñi am vidéo lundi lundi lañ ma jox information ma téye ko mardi sama bop mercredi sama bop diko ko concocté bu né erreur amna moy partager wu mako kenn makay ci sama xel

li sama xex man pa ak waa Sonko de nan lay def ba jaxase bagage yi lolou sama xel bi ci liggéey bobu la nekkoon donc ma pare live sumé ko ba set teud sama kër lek sama yu may kii toog samedi bi am sañu ben cousin bo xamni ni métis la judo France yaro France màggee France di liggéey Air France international di sama cousin ñu bokk ben génération di déglandoo musique hip hop rap di sama mbokk ñoom ñu war a Air France war a ñëw fii Canada dañuy ñëw ñoom dañ fiy ñëw saa yu fiy ñëw daf may woo loolu mi ngi sama bopp de daf may woo ne ma booy am naa voyage Montréal buy ñëw Montréal daf may jox adresse hôtel bu mu war a dem ma dem jiitu ko fa du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon bu dee Montréal bu dee feneen la moom du ma dem parce que day sori bu ñëwee Montréal ñooy nekk. comme on dafa fait hôtel hôtel bi 4 étoiles du 5 étoiles du hôtel 6 étoiles 4 étoiles ou Air France international ño fa waroon donc comme vous nañ fa je mu jox ma adresse bi René Levet. René Lévesque hôtel bi hôtel René Levet. hôtel bi 4 étoiles, de 5 étoiles. Comme nous avons été relevés, nous avons été affaire pour nous. 4 étoiles, hôtel Bagini. Hôtel Holiday Inn. Holiday étoile 1, 2, 3, 4. Holiday Inn, étoile Bagini, 4 étoiles, de 5 étoiles. 4 étoiles. Donc, Holiday Inn, hôtel et suite. Nous avons été fofu. samedi bi mu jox ma adresse bi ma dem ci hôtel bi jiitu ko fa da doon neige jour boobu ma dox réer naa fa sax ba mu gis hôtel bi ñëw ci bunt bi fekk ku ponkal ma laaj ko fii ma hôtel mu ne ma waa Holiday Inn ma dugg toog foofu ma toog sax di xaar sama cousin bi live naa fa <laughs> live ma njëkk def ma ci hôtel bi laa toog parce que ñëw naa wax laaj waa ji réceptionniste bi na ma waaw ma ne ko euh, ba xam Air France ñoom fii la ñu wàcc mu ne ma waaw ma ne ko dama am sama benn cousin buy liggéey Air France bu war a ñëw fii moom moom ma wax pour ma jiitu ko fii quoi parce que day neige te seen avion ñëw na mais ba léegi wàccagul ci aéroport bi ci tarmac bi donc ma koy xaar fi mu ne ma waa dama toogee ne ma toog foofu teg sama portable live ci hôtel bi ci suuf foofu laa njëkk a live live waxtaan ak gars yi expliqué en attendant ma koy xaar pour mu ñëw ma xaar ko mu ñëw waa ji may ma ndox ma jox ma benn butéelu ndox may naan di xaar sama cousin bi ñëw bu mu ñëwee après ñoom seen seen gars ñëw ak seen seen seen saag yeeg sol seen seen yére air air France seen costume yeeg seen affaire yooyu noonu ñu ñëw ma ñëw dugg kontante ak moom et ñu jox leen ku ci nekk sa sa caabi ki chambre sa carte chambre mu ne ma man damay reer yi man a gaa yi dañuy reer yow léegi yéegal ci chambre bi xoolal wëral chambre bi nga yéeg ci kaw nga dugg après nga xaar man en attendant parce que ñun ñu ngi doog a wàcc parce que lu tax ma jiitu ko foofu noonu moom mooy ñoom instant yooyu da doon neige ci aéroport bi mënuñu woon wàcc laaj naa ko mu ne ma non wàccaguñ boo gisee ma def live boobu xëyuma ma def live de dama xool ba xam ban moment lay ñëw ci la ma ne booy ñun wàccaguñ instant yi parce que day neige ñu ngi xool fan la ñuy ban kii la ñuy mën a wàcc euh, atterrir ma ne ah kon mun naa fi def live loolu moo tax ci suuf ma dafa fa live mu jox ma carte bi ma yëg ci kaw teg ba dem gis chambre ba toog ubbi chambre bi rek taal teg live bi boobu moom mi ci suuf ak steward yeeg pilote yeeg ñoom ñëpp ñu ngi ci suuf fas yéene reer ma defal leen fa live noonu tak tak tak tak tak noonu laa gisee chambre bi man ak ñoo ko gisandoo noonu laa taalee chambre bi noonu laa ubbee chambre bi tegee noonu di live yëpp dama gis may live loolu waxuma dara ba léegi pexe bi li ma dégg mi ngi ci sama bopp bi mais ba léegi waxu ko may laay ma laay lu may laay foofu tamit béggee ay xooleen chambre bi na na bon après ku ci nekk wax na ci lu ne ñii naan xaw ma sàngara la fa naan xaw ma dafa fay milliard ñii naan million ba yooyu ay détails la ay détails la c'est de la politique c'est normal il faut la politique moom Sénégal c'est l'art de mentir donc c'est pas c'est pas grave donc mu reer ñëw bu muy ñëw ma coupé laay bi ñu toog man sama boobu maa toog ba guddi ma génn dama wuti coop si fast food boobu noonu seen seen fast food yooyu restaurant rapide taf-taf lekk ñëw toogaat ak moom le lendemain mu war a ñoom ñu war a quitté waat à quatorze heures ma war a live à seize heures ma ne ko booy mu ne ma waaw ma ne ko mais est-ce que mënuñu mënoo wax réceptionneur bi vous faites de réceptionniste, vous faites que les vous n'avez juste 2 h 3 heures de temps en attendant, vous avez un document à Montréal. Vous faites la joke, vous avez un Uber, vous Uber, un autre pour vous, pour vous, pour vous, pour un voyage. vous, pour vous, pour vous, pour un pour parce que vous, pour vous, live. C'est pour français. pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, donc, je veux que vous mon le réceptionniste, vous avez un temps, parce que je vais live à 20h de Dakar, je vais 17h. xaw ma 16 te ñoom 14h lañu war a dem mu ne a ok amul problème a laa demee bu ñu yeewoo bu ñu bu mu demee ndekki ñëw moom moo war a ndekki a que fa carte man ndekki ma fa man hôtel boobu lekkuma ba lekku ma ndekki ba lekku ma parce que parce que yoruma carte bi moom moo yor carte bi te carte boobu mooy ubbi kii bi pour dugg ci restaurant bi man lekkee ma fa. donc moom bu mu demee ndekki ba ñëw yee ma man ma jóg man maa dem ndekki ji jibiti ñëwaat bu ma ñëwee mu wàcc ñu dem gis réceptionniste bi heureusement benn naar la sax. mu ne ko man damay dem à 16h ñu dañuy ñibbi dellu Paris à 16h suñu vol donc est-ce que kii sama cousin la dafa déplacé wu fu sori ñëw est-ce que mun nga koo may juste 2 heures 3 heures temps en attendant oto bu ko war a jël si mooy seen euh, oto bokkoo yooyu pour mu dem. mu ne ko waaw mooy ma ko ma toog boo tee live boobu yàggul sax donc dañuy ñëw ci live na bon ma toog moom mu dem ma toog foofu man kese.

Sonko ku jub la Sonko ku gore son Sonko ku maanu 15 ans impôts et domaines moussa va faire musu fa sàcc rawale mais xool le wax jooju mais sénégalais comme sexe rek lañ bëgg bàyyiwuñ ci xel lu ñuy doomu qualité yëpp la jox Sonko loolu mooy Madame dafa am émotion ak raison la raison moo euh,

bu ko neexee après na naan sàngara bu ko neexee na wër cagaam bu ko neexee na laal fu ko neex loolu c'est sa vie privée ñun luñ bëgg moom mooy ku jub ku correct ku ku dul laal keesu réew ku alalu réew intéressé wul ku dul sàcc ku dul rawale comme def na 15 ans ci kooku kooku mérité na ko foofu rek la affaire waroon yem. mu loolu loolu rek kenn gisuma kenn ku ci wax kenn mësuma dégg ku ci wax ne moo la foofu wow extraordinaire amul.

te wax ko ci live bi de Sonko musul violé aji sar gouvernement di lañ la yónni wala ñu fay la ngay taxaw naan ay Sonko ko jub la Sonko ko maanu la Sonko ko gore la 15 ans impôt d'amine musu fa sàcc musu fa fen musu fa njublang musu fa détourné musul dund corruption kenn gënu ko jub wax qualité yooyu yëpp loolu dinañ la yónni ngay wax lolu xana da nga dof ba paré ñew dindi ne leen Sonko musul violé Sonko musul violé loolu lépp ma waxal ko Sonko kenn jëlu ko kenn jëlu ko kenn jëlu ko en compte ma ne mais dafa am raison et émotion ma ne gis naa ba léegi waxuma lu ma gis gis naa lu doy waar gis naa lu yéeme gis naa laay lay la laa gis naa gis naa mais ba léegi waxuma lu ma gis na ma sénégalais wax lu lan laa leen wax lan laa gis dama joué ci seen intelligence te kenn mënu ci bàyyi xel lu wax wax leen ma lan laa leen wax laa gis na ma kenn wax vous étiez là ñëpp di xool wax leen ma lan laa wax laa gis gis na gis naa wuu lu ma gis dama jooy dama kii sama petit lay lay la laa gis naa di joué sama film mais lan laa gis mais wax leen ma lan laa gis balaa ngaa mbéj gémmiñu duudu da ngay ngay xaar ba muy walis lan gis sama gars yi kenn waxaguma ko très bien ñu war ma laaj mais lan nga gis gis naa mais loo gis ma yëpp ma dóor ko point d'interrogation li ma gis gis naa jot mais doy na waar Sonko na génn wax na génn wax gis naa Sonko na génn wax tak mais loolu maa ngi dóor appel ñi nga xam ne ñoom ñoo yore seen fameux vidéo boobu seen fameuse boobu monté de toutes pièces ne dañ ci sànq Ousmane Sonko pour xamal la ni bon yéen gis man gis naa lépp donc live boobu gudd loolu la dama lu ma tagg Sonko yàqu ma ko benn yoon Sonko lépp dama ko tagg Sonko lu ci des gis naa kese la mais gars yi nañ nañ waxante dëgg <laughs> lan laa gis gis naa lan laa gis dañuy mbéj gémmiñu duudu te xamuñu lu mu wëlis gis naa mais wax leen ma dama leen wax lan laa gis mba dama leen wax ne Sonko gis naa ko muy muy def dara dama leen wax Sonko gis naa ko mu nangam dama leen laaj ba xam dama leen wax benn yoon ne Sonko gis gis naa ko muy def ñaawteef est-ce que wax naa ko mais waxuma ko ma teg ko noonu dem sama yoon génn wàcc hôtel bi ñëw ne kooku ok jot na maa ngi ñibbi yegg si nañ mu toogloo ma foofu ci suuf bu ma toogloo ci suuf gis naa rek am nañu ne ñoom nalawuñ ci gis naa gis naa lu ma jooyloo gis naa mënuma sax sol kii sol ay verre gis naa kese ñu ne am nañu ne ñoom nalawuñu <laughs> lu ma gis lu doy waar lu kéemtaane lu yéeme am nañu ne ñoom nalawuñu ko te koo xam ne nee Sonko ku bax la Sonko ku djub la Sonko ku maanu la Sonko ku gore la Sonko du satch Sonko du fen Sonko 15 ans loolu lépp mais <laughs> j'ai vu des vidéos de Ousmane Sonko après c'est quoi c'est il y a quoi dans les vidéos dama la ko wax <laughs> je l'ai pas dit j'ai vu des vidéos j'ai vu des photos mais ba léegi waxuma lan la gis kenn mënu fi wax la musuma wax kenn te kenn mënu fi génne lan la wax len je me mets au wax leen lan laa leen wax laa gis gis naa ay vidéo et naa ay vidéo ay photo ay lan laa gis ba léegi waxuma lan laa gis gis naa ay vidéo gis naa ay photo gis naa ay mais waxuma leen ba léegi lan laa gis gis naa kese gis naa nga bëgg cee dóor nit nga bëgg cee saaga nit nga ne noonu parce que waa ji ne la gis na xanaa da nga doon xaar xanaa da doon xaar gis xanaa da nga doon xaar xanaa daloo sama xol neexul gis naa loolu wax naa sama xol neexul gis naa mais ba léegi ma lu ma gis gis naa ay photo gis naa vidéo gis naa mais lan laa gis question laa ba léegi tontoogu leen tu sama xol neexul tey gis naa mais lan laa gis donc kon maa ngi maa ngi nekk di am lu may jouer maa ngi jouer ci dara kon maa ngi ci xeex maa ngi ci ay ci ci place ay pion di jouer ci ay carte lu doy waar mais ba léegi waxuma lan la lu doy waar mais lan la boo gisee lu doy waar boo gisee lu yéeme gis lu catastrophe mais lan la danga dañuy avancé donc ma ñëw wàcc bu ma defee loolu ba pare bàyyi ko gars yi xoolaatuma ma wàcc ma wàccee waa ji ne ma est-ce que mën nga xaar fii ñu xool chambre bi ba xam yàqul dara nanga ma leen waaw mu toog xaar benn waa ji ponkal yéeg xool xool chambre bi ba mu neex ko ñëw génn ne noo non cool après gars ne ma demoon ma dem fanaanu ma ci <laughs> hôtel boobu donc hôtel boobu xaw ma ñaata la xaw ma luñ ciy fay xaw ma ca dara ab ret bul laa fa naan ret bul ya ma fa fekk naan naa dem sama yoon parce que dama énergétique dama bëgg affaire énergie ret bul laa naan dem sama yoon am ñu may dëkkale naan dafa màndeek day tux yàmbaak day kenn xaw te man tux sax cigarette mais loolu lépp ah, c'est entre nous gis nga loolu ngeen def na boo leen ko defuloon moom mere leen gis nga nit sawaay da ngeen di am fulla réeroo amul ñàkk waxtaan moo am boo leen defuloon seen réaction yi ngeen am boo leen ko amuloon laa leen di mere parce que gis nga Sonko ah daf leen war ko da leen ko war a jaral da ci war a teg seen bakkan képp ko leen yaakaar ne dafa ñëw pour yàqal ko teg leen ci bakkan boo leen jaayante boobu man noonu la ma neexee parce que boo leen ko defuloon laay tiit boo leen jëloon seetaan Sonko nit bu bu ko neex ñëw def lu ko neex wax lu ko neex boobu laay toog ne mais ñii est-ce que jar nañ ko mais Sonko leader la bu ko jar te dama leen jox ay qualité ne leen kii daf ko jar ci biir laay bi début bi loolu laa leen wax daf ko jar donc seen réaction c'est normal noonu la ko am leader bu mel ni Ousmane Sonko boo ko amee denrée rare la cent ans lay am cent ans ba cent ans genre xut bu samaan la cent ans ba cent lay am boo ko pertee perte nga donc da nga ci war a garde sa daf la ko war a jaral parce que doomu hommes bu ñëw la pour rocc leen ci adduna yi pour que rek yàq xaj yi fi nekk donc et je vous recommande d'en faire plus car nos ennemis sont trop dangereux et capables du meilleur comme du pire je suis euh, dama je suis reconnaissant dama ci kontaan ci li ngeen ni ngeen doxalee bu sap keneen keneen du ñëw donc ma dem ñibbi sama kër gii fii laa fanaan léegi nag problème bi loolu la nag foofu la problème bi amee wax naa gis naa mais waxuma ba léegi lu ma gis fa la problème bi amee nag <laughs> am sama benn booy boo xam ni dafa aay ci affaire informatique ma woo ko moom sax moom moo moom moo woon mais moom moo la <laughs> mais affaire nu mu demee nii booy da nga yor vidéo nanga ma ne ko non yoruma tus yoruma vidéo yoruma photo yoruma njëkk raconté booy bu ndaw la a presque vingt et un moom mooy montel affaire yu bëri ma ne ko yoruma tus ma euh, ko waaw mais booy tu sais qu'est-ce qu'on va faire il faut nga montel ma vidéo benn vidéo bu fou quoi vidéo mu ne ma ne grand loolu yombul de gaawul de ma ne ko ah bon affaire technologie xaw ma ci dara lu bëri ma ne ko jàpp ci quoi foog foog nga jox ma den quelque chose de faux le faux pour ma sànni ko Sénégalais yi. parce que li ma leen wax ne gis naa am na lu ñuy xaar mi ngi mel ni gis naa gaynde gis naa gaynde nga indi benn doomu doomu tubaabu gaynde wala nga indi benn gaynde boo xam ni gay gis naa gaynde jëpp dëkk bi taw waaw gis naa gaynde gis naa gaynde nga ñëw indi leen gay gaynde simb en fait loolu laa bëggoon def donc ma ne ko mais montel ma quelque chose mu ne ma non vidéo moom day metti grand tu sais quest va faire mën naa la def photo ma ne ko waaw mais même photo baax na na na na doon photo rek mu dem monter moom ci boppam xaw ma fu mu jëlee benn photo ba benn photo mu dagg bopp bi teg ci photo Ousmane Sonko yónnee ma ko bu mu kii sax dafa xaw a dëng nii quoi ma ne ko non booy lii dafa flagrant quoi est-ce nga ko ajuster bopp bi waaye bi na ma waaw fan lañ nekk man ak moom ba quatre heures du matin. boobu moom mi ngi naan booy bi mi ngi naan ma grand bàyyil ma julli ñi ngi noddu fajar bàyyil ma julli fajar après ma ñëw revenir la ma ne ko d'accord mu dem julli ñëw mu pare mu yónnee ma photo bi ma xool photo bi ne ko waaw waaw yii sax tane bii tane na boobu wax naa gis naa lu ma gis yëpp de ma ne ko bii sax tane na ma toog le lendemain c'était le vingt neuf le lendemain le trente ma yeewu toog xool mais gis réaction yi ñëpp ay taxaw xamuñu luñ gis kenn xamul moo laax kenn boobu jamono jooju est ce que xam ngeen ni coow amuloon bu ma defee laay boobu ba pare amuloon coow seetlu leen dara de li mi ngi am ci photo parce que il fallait dara génn li ma gis laa leen bëgg a jox li ma gis laa bëgg pas ay wax ma yéen de li ma gis laa bëgg a indi lan la gis lan lan la gis donc il fallait ma am lu ma indi pour won leen ni ah, euh, lii laa gis donc loolu moo tax bu mu defee loolu ma toog ba ay 11h fii midi ma sànni photo bi nee na alors te pourtant vidéo la mais vidéo laa leen wax naa mais photo laa indi indi ma photo vidéo ma sànni leen ko <laughs> ngir gars yi jël ko.

yow nga ne yow sa doom bu juddu tey bi tooy xepp bi moom xam na man xamuma yow sa liir bi sax xam na man xamuma yow say papa sax nee na lii foo sama jabar sax nee lii foo la sama doom nee lii ñu ne man la ñuy jàngal lu foo ak lu foowut comme xamuñu dara ci li may liggéey <laughs> donc mënuñoo xam ñu jàppee ma benn ngaaka daal boo xam ne moom xamu dara ñoom ñoo xam lépp ma def li may def joxe ko bu ma ci paré débat bi am mais comme xamu limay li may motax je me suis plié mané Sonko na ma jéggal Sonko na ma jéggal ma leen du ma leen dé de parce que xamu leen li may xeex Sonko na ma jéggal donc on pour wax leen ni loolu lépp man mako def pour créer du faux dans du faux créer du faux dans du faux nous avons préparé une fausse vidéo j'ai préparé une fausse affaire pour pour parce que nous avons ci manipulation la boc. Nous faux nous créer du faux dans du faux pour donner du faux que tout devient faux créer du faux dans du faux pour donner du faux que tout devient finalement faux stratégie Bob laa jël prêcher dans le faux pour avoir dit vrai et pour ne pas entendre le bruit de l'ennemi il faut en faire autant ma fait mais pour vous ko fait. après ku ci fait bàyyi vous la nga commenter ni commenter de toute façon mais si ma tollee foofu ci information <laughs> la déjà intention l'intention c'était de préparer les Sénégalais sur du faux qui va venir vers vous Qu'ils sont prêts à monter des choses fausses D'y préparer pour rien. donc préparez-vous à du faux de voir des vidéos fausses de voir des photos fausses de voir des images fausses qu'ils vont essayer de vous imposer mais lu fi nous ñëpp dañ le lii lu faux parce que Mola nous avait déjà averti d'une autre manière Mola nous avait averti sur du faux Il ay a ngeen yéen a ko won photo yi won ko vidéo une nekkate lépp ci faux ngeen koy defee combat bi a jël ay photo yu faux jox ko Mollah jël ay vidéo yu faux jox ko Mola, jël des faux les faux gars préparez préparé mentalement que y a du faux qui va venir sur le marché bientôt fu gars yi dañ tuur foo bi te ñu ngi koy tuur le 18 te dinaa leen wax lañ fi nar a liñ nar a teg donc ma ubbi ab ma ubbi campagne électorale bi ma ubbi campagne bi fop waa APR yi commencé ñëw benn benn <laughs> di matt ci kaw di ñëw ci suuf foof APR yi di ñëw di jege si eh, voilà sama

mais j'ai pris tout Le pla information ci la xamanté ñu ci la xamanté ci affaire photo de ci sec xamanté Yérim sec et duma démentir affaire photo suis ci la ñëk waxé ñu créé groupe Un <laughs> groupe ma tok ci biir groupe bi tok di di fil ci la ñëk waxanté Yérim Seck ay affaire ay ah Yérim da nga Macky eh, Ousmane Sonko fu muy fu ñu ko bettee ak na mu ne ma si yor naa ko ma laa yor naa ko yor naa PV bi procès verbal bi yëpp yor naa ko <laughs> ma ne ko waaye mais jox ma ko bokk jox ma ko oui ah non dama la koy jox dama la koy jox procès verbal bi police bi ñu leen jàppee ñu ñëw fekk leen foofu noonu après ñu ñu laaj Ousmane Sonko mu joxe carte d'identité ñu jël ko ñu laaj mais yooyu yéen sec <laughs> maa expliqué ma ne léegi danga ma koy jox ak ñeneen ak ñeneen di dugg ci la Waji ji walf euh, euh, euh, kii sow mom tam ñëw gaay gaay yi di leen yobbu ah dem leen gisi moolaa dem leen gisi moolaa manan ni samay loxo ay ayca ku yor ku yor lu sonko ku yor lu sonko ku yor vidéo sonko ku yor photo sonko ay ayca lepp je bombarde tout <laughs> avec ça heureusement j'ai eu plein de choses j'ai remarqué que ndekete qui ennemi sonko la kii te yorul dara qui day fen yorul dara qui yor lu mi yor foo la kee yor ke mais non laa ko xamé noonu laa ko xamee parce que ñoom ñëpp a ñëw ma jël samay information yépp tey bu ma doon wax ak Sonko mun naa ko wax ennemis yépp ñëpp mun naa leen ko wax ay ñoo xam ne sax dañuy dañu ñëw nañ ba may won sax won ne ñoom dañuy wax ak Sonko et pourtant ñi ngi dans l'autre camp mais dañoo xamante woon ak Sonko di di di ma voilà pourtant avant-hier avant-hier mi ngi nii ku la wax ni avant-hier Sonko maa appelé dañuy wax ci la Aliou Sow ñëw ak ñeneen ñëpp ñëw ma jël samay information di téye di teg jël information di téye di teg ñaari fan lañ ci teg ma yeggali li def ma yeggali li def bàyyi noonu gars di critiquer mais maa ngi yeggali def musuma bàyyi live maa ngi yeggali mu seetlu leen musuma baye live maa ngi man fuma ne di kaas di wax di saga maki sal di tek Sonko di ko imposer xana lor rek kay ko war ñi nan ay jënd xana lor rek war na mëna jaxal mais waji wax limi wax yëpp après paré eggali ay live am di kaasal Sonko di défendre Sonko di di saga maki sal <laughs> on comprend pas juste le surlendemain j'ai commencé j'ai continué mes lives à critiquer Macky Sall à défendre Ousmane Sonko donc loolu rek nit war na mën taxaw ne waa mais qu'est-ce qui se passe ici lan moo tax kii joué lii après continuer di défendre Ousmane Sonko di saaga Macky Sall di attaquer le gouvernement de Macky Sall donc il y a quelque chose il y a anguille sur roche loolu moo tax Macky Sall yëpp taxawaat groupe bi commencé dee kenn waxatut mais à chaud lépp lu ma am maa ngi ko ci tàngoor googu après bu ñu tourné gis may laaj di continuer di défendre Ousmane Sonko groupe bi ne salaw kenn waxatut personne mais je cite des noms bu dul dëgg dañuy génn ne du dëgg Aliou Sow il vit day wax mi ngi si média yi <laughs> bu dul dëgg na du dëgg Yérim Seck mi ngi dund mi ngi ci média yi di wax <laughs> ne du dëgg ñu jàll ci leen ak ñeneen ak ñeneen gars yi commencé di seey di seey ci groupe bi nag mooy kon kii tóob la le gars la parce que moom ak li mu fi def yëpp mi ngi ne di défendre waa ji kon kii moom lan la gis moom kii nangam nangam groupe bi ne salaw mo tok def tek amna ay éléments te éléments yoy la ñëw pour génneel leen éléments yoy la leen di génneel léegi nak affaire bi fofu rek la yem leneen lo ci dégg yëpp ay kessaw kessaw la ay kessaw kessaw man pour une question de de dignité humaine pour une question de de de de loyauté je vais jamais trahir ce combat amul doomu aadama bu yalla may lenn lu war a tax ma trahir combat bi loolu amut wax naa leen ne yaay juragul doom bu ma mën a jënd man yaay amagul doom bu ma mën a détourner ci sama combat bi combat bu ma teg sama bakkan la komba boo xam ni dama ci teg sama ruu mu jaral ma àdduna ak alaxira doom bu may jënd yaayam juragu ko Sénégal Je le dis avec tout le respect que j'ai pour les mamans. Je dis, vous les mamans, donc pour que man mi, kooku yaay jurugu au Sénégal. yaay pas au Sénégal je le dis haut et fort ma kañ lay doon me ma tëdd sama à l'hôpital, wala ma nar a dee ba heure bi, yaay jur au Sénégal mu vous ma man day Sénégal je resterai digne même si je ay je resterai digne même bu je resterai digne lol la mais heureusement j'ai toutes les informations j'ai le le PV nous nous préparé pour jour procès bi et je vais le dire j'ai ça

<laughs> tu vois tu vois seen commentaire yeeg yooyu <laughs> il font même ni chaud ni froid léegi ñooñu nga manipulation rek lañ mun mais gars yi ils sont sa yaay juru la ngay mun a nax ñeneen ñi fii gars yi dañoo blindé wu ay commentaire dof yeeg jéem a xool ñoo nax ak eh, eh, ñooñu dem leen nax dem la nax sa yaay kenn nalawatul léegi Macky Sall munul naxaate waxuma laa yow nga nekk doomam wala biddo xaraamam buy wër ci kii commentaire rek na nga xool koo nax yooyu jeex na fi caka ja jeex na fi ñu fi ne dañoo yeewu ci le Frédéric Nappel génn xamna ni peut-être ci le ko yoni ma <laughs> Maham Diallo bu mu ñewé wax présenté wu <laughs> mané ko mais man nan laay xamé ni yow mo garde corps Frédéric Nappel il parle comme un bandit dafa bëgg bandi bandulu et je peux te dire plein de choses sur Frédéric Nappel après bëgg bandi bandulu bëgg ngand ngandulu bëgg wa man le Frédéric napel et cetera di di présenté wu ci la am ay éléments yu bëri ci mom démb ba tey Frédéric Nappel doo leen nga génn mais lan moo tax may accuser nit yi nii jàpp nit yi leen accuser ñuy dund te kenn du génn ne moo laa bàyyi fen <laughs> Frédéric Nappel li ma ko waxal dégg na ko mu yónnee ma kartam ma téye yónnee ma ay vidéo ma gis ko wetu Adji Sarr mu nekk wetu Adji Sarr nii bu bu saa yu aji saar ñëwee war a gisanteeg kii di maa am Diallo saa yu génnee Frédéric Nappel moo koy garder Frédéric Nappel lay dukar du garde corps Adji sar nak Maham xam jall moko yoni pour muy protéger Adji sar mu yoni ma ay vidéo dama gis nga yaa ma ngi ni ci kanam ma ngi gis Frédéric def ni ma ko ah ok ok deug la kon yow yaay garde corps euh, euh, ki nga xamni mom mu commencé ma expliquer jaar-jaaram na len expliquer jaar-jaar yu bari lo xamni gaay ci média bi xamna ni son ko xamna ko mu commencé ci la am Frédéric Nappel ci la am euh, politiciens yu bari sax ci la am sax ay journaliste a yore vidéo boobu mais comme ñi m'a demandé ngir yàlla bu ma wax trop wax ma turam ci laa amee journaliste bu yore vidéo boobu tout ma jël ci maximum d' information possible tegee ne mais c' était pas le moment bu ma ko dóoroon non non non moment boobu dama ko def rek ñu arrêté waxu procès Adji Sarr rek retourné wu ci ki nga xam ne moom Mame Niang <coughs> parce que déjà nee nañ Mollah trahir na leen Mollah dugg na ci seen système jël na le maximum d' information ci benn photo bu foo daw na continuer di défendre ak Ousmane Sonko donc yóbbu na yóbbu nañu Mollah yóbbu nañu ala kulli àll Mollah yóbbu nañu jël na le maximum d' information dem na Mollah yóbbu nañu. ma jël information yi teg. bu ma ñëwee bëggoon génne information yi Cheikh Bara Ndiaye bokk na ci ñi ma wax ne non c'est pas le moment man leen ok y pas de problème nañ teg bagage yi tant que waxuñu affaire Adji Sarr du ma génne bagage yi mais bu ñu waxee Adji Sarr rek ma toj lépp bum mu takk loolu kese la ne ma waaw ma waxtaan ceeg kii nga xam ne moom mooy Cheikh Bara Ndiaye ba ñu waroon def vidéo live ma ne ko Cheikh Bara non non mu laan ma ne ko non buñ def benn vidéo bu ñu def live vous êtes recherché et je suis l'un des plus recherchés au monde vous vous fait live vous la un la parce que gis nga l'affaire Adji Ousmane Sonko nous a def faire, mooy paqueté de dugal leen ci kaso yi peeg attaqué Ousmane Sonko l'affaire Adji Ousmane Sonko loolu moo à la dernière minute ñu ils feront tout pour que tu Touré Kewelo du fekkee l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr parce que beaucoup na ci ñi ci informés. Moi, informé moo ñu ko à la dernière minute bu ma waxee Napal lu euh, euh, Napel lu ma wax Frédéric lu wax mais il m'a dit que dañ ko porter leur plainte Et Adji Ousmane Sonko wax na ko tey Ousmane Sonko respect à lui nit gënu ko informer Sénégal il a dit déglu leen baax de ak <laughs> lu mu leen wax dafa quoi nappel ci pas sama dañ il n'avait jamais porté plainte ñom ma xam porté plainte Ousmane Sonko porté plainte ki nga ni euh, Babacar Touré il l'a fait mais il ko ci propre grèm ci propre grèm néna na mom mune mune ma mola kañ la baa Babacar Touré wax ci man est-ce que xam nga ni seetaanu ma ko ma ne ah, mu ne ma wallaay seetaanu ma ko chef d'inculpation yi gouvernement bi moo ko créé moom neen dégluwu jotu ko déglu seetaanu ko gouvernement bi ñoo dem dagg loolu bind seen chef d'inculpation woo ko moom ne ko léegi da ngay porter plainte yow demal rek demal ñu yóbbu la di nga porter plainte moom mu dem porter plainte mu ne moom seetaanu ko Nous portons la plainte Ousmane Songo, day famille am kenn kenn par contrainte lañ ko ko def mom plainte par contrainte motax buñu pas encore Babacar Touré kéwolo mu mais dañ ko wo ne ko kay nga affronter ko mom dañ ko wo mais nga récupérer sa plainte qu'est-ce qu'il m'a dit il me dit mola. est-ce que tu sais que le gouvernement ne joue pas le gouvernement ne joue pas avec les assez.

lepp ñu def lo mako je l'ai pas fait moom moom ma wax té né bu mako deful dañ may ray mom ci boppam Frédéric Nappel j'ai parlé avec avec sa je je connais il m'a mis en rapport avec sa famille je connais sa famille bu mo wooyee magu papam ma euh, frère am frère am mais daf daf na ma non non non je peux pas parler parce que dañ ma nek sous écoute dañoo nek sous écoute on on vit plus le gouvernement nous a mis sous écoute. Même Napel, il est sous écoute. Même ses frères sont sous écoute. Le gouvernement bi sous écoute le gouvernement ne joue pas avec les Casas. il les tue il les accrase, il les efface chaque fois qu'il y a manifestation il tue un Casamance gis naa loolu mu ne ma est-ce que mës ngaa gis manifestation bu gouvernement bi rayul ay casase ma ne ko mësuma koo gis mu ne ma voilà moo la j'applique ou il me il m'efface te j'en ai pour rien du tout lépp ils ont c'est eux qui l'ont fait donc kooku noo koy def et kooku noo koy def je vous demande nan la ñuy def nappel il dit que gars yi ñoo ko teg ñoom ñoo ko teg goon ne ko kaay mettre les sous écoute mom ak ay ay famille kenn menacé le gouvernement moy menacer Napel c'est le gouvernement qui menace Napel Frédéric c'est pas le peuple kenn woowul famille kenn famille yep yëpp qui nous kenn woowu le gouvernement moi le mettre ñoom ñëpp sous écoute Top len teg len choc Napel doit accepter du sale ou bien il sera effacé comme ay moroomam c'est. il n'est pas de la Guinée-Bissau Napel est de la Casamance n'appelle est de là Médina Mankagne. sa maman est de euh, Nyagis. je te parle de n'appelle bi xam Frédéric sa maman est de Nyagis, son père est de Médina Mankagne. ok voilà il n'est pas de la Guinée Bissau nee na ma bu dem Guinée Bissau xew kese moo ko don yóbbu Guinée Bissau xew dem Guinée Bissau amoon na fa jabar takkoon na fa benn Guinée Bissau Bissau guinéen am nañ ay dom xamna ay domam n'appelle à des enfants partout Nappel était un militaire qui servait à Thiès mu dem guerre Libéria en tant que militaire bu mu guerre Libéria mu bu muy ñëw mu indaale benn libérienne mu takk fa benn libérienne takku ko sax tibb fa benn libérienne indaale ko benn jeegu libérienne bu mu jëlee Libéria ci geeru Libéria bi indi ko di ko dóor di ko toroxal di ko gaañ nappel ku mun a la je le connais très bien ku mun a fen ku mun a inventer histoire sosal jabar bam boobu mu jëlee Libéria indi ko takkal ko ba de eh, ko doon jéem a empoisonné ci lekk nee na loolu jël na ko ko euh, lu mu lu mu tëddati ci mooy ñu def test eh, kii yi avant empoisonnement bi loolu nappel bu ma koy wax sax kii waxagu ma ko Ousmane Sonko waxagul sax ay affaire yooyu bu nekk wetu université xaw ma lan euh, laboratoire boobu moo ko doon empoisonné ñi mais mais mais mais mel ni <laughs> sama informateur bi mais mais mais mun na dugg fi mun na dugg fi ah sama informateur bi mooy bëgg a ñëw ndeysaan Euh, je sais pas comment on fait mais de famille ni euh, xaaral hum, hum. je sais pas hein? attendez guys balle mari ok on va continuer de toute façon Euh, boo leen gisee affaire bi arrêté léegi waaw laboratoire bu nekk fan la wax la si nappel laa doon dem parce que ki ma informé daf ma woo vidéo xam naa dafa bëgg a dugg ci live bi parce que dafa <laughs> il veut il veut vraiment pour wane ni moom la pour leen nit yi daw quoi pour wane ni man amul lu ma monté amul dara lu def lépp lu ma def yëpp dama ko def pour pour dimbale Ousmane Sonko kooku dafa bëgg a dugg nii mi ngi may woo fële vidéo mais xam naa dafa bëgg a dugg fii amul lu ci tiit dafa bëgg duggu wax leen ne moom moom la moom moom il faut assumer donc maa ngi woon ci nappel donc mbir yooyu moo tax n'est-ce pas ma am ay information ci nappel et cetera et cetera léegi nag lenn moo fi des sama gars yi lenn moo fi des combat bi nous on va venir vous détailler détail par détail le procès qui va se tenir mais il y a quelque chose qui s'est passé Je voulais commencer léegi di leen di toj live bi tay dama ne dama len di édifier lepp li fi amone après ku ci les commentaires sont libres comme mu neex nga libre commenter mais de toute façon li mom mo fi am <clears throat> mais mais bro euh, maa ngi gis yaa ngi jéem a woote mais bu fekkee mun nga woote ci live bi parce que maa ngi jéem a bind fii sa tour mais ça passe pas ok bu fekkee ni peut-être peut-être wala doo sama ami fii je sais pas bind naa sa tour mais damut ok bind naa sa tour fii damut am a dafa am euh, gars yi bon dañu dafa am lu am.

pour leeral leen rek man awma lu may nëbb awma nekkuma ci ay yàq nit quoi man bu ma déggee ay nit naan non dafa bëggoon yàq Ousmane Sonko bu ko mënoon mais man bu ma mënoon kan moo fi jog ñu fay ko mu war a yàq Ousmane Sonko après ñëwaat di toppaat na di défendre Ousmane Sonko kan ngeen fi am mais mosu leen ko am ñi fi jóg naan dañuy yàq Ousmane Sonko ba léegi ñu ngi yàq Ousmane Sonko. amul kenn ku fi jóg ne day yàq Ousmane Sonko di tante après bàyyi daw ñoo sakat <laughs> c'est des conneries euh, mais bro dafal demande defal demande dafal demande boo mënee def demande bi ah maa la gis yaa ngi yaa ngi fii di amee mais dafal demande rek boo defee demande moom mun naa la bàyyi nga dugg tu vas les expliquer voilà non pas ki def montage photo bi montage photo bi c'est après koo xamul ñeneen yi sax koo sama benn booy la pas ku def montage photo ki def montage photo bi Dakar la ne sama benn booy la moma defal montage bi une nuit ma génn ça n'a rien à voir ak ñi nga xamni ne yor vidéo bi information bi montage bi ak lépp loolu dinañ lay ko tek ça n'a rien à voir bu dugaatee rek ñu dem mais nañ continuer gars yi nañ continuer parce que le temps euh, presse euh, pour wax les ni ñun amuñu lu tiit amuñu lu ragal on on crée rien du tout on défend notre président Ousmane Sonko on essaie de défendre notre candidat juste Qu'est-ce que que taxoon j'étais vraiment là pour à ma méthode comment prêcher le vrai le faux pour avoir du vrai comment pour ne pas entendre le bruit de l'ennemi il faut en faire autant une affaire fausse je vais créer des fausses affaires dans des fausses affaires pour pour rendre tout faux c'était juste mon intention mon idée ci loolu la j'ai rien essayé amul tus lu ma essayé léegi nag boo leen jëloon benn moolaa buy wëri information ñoo di jox ngeen ni da koy rey ci saase mais le gouvernement is xam ngeen ni moment boobu mooy moment bu gën a neex ci moment am moment bi nga xam ne ñëpp ñëw nañ di acharné wu ci Mollah Morgun ils étaient contents parce que ki leen fi sonnal dugg seen adduna dugg seen silib yi dugg ci seen caleçon yi di dàq seen jabar yi di top sen njaboot di mais kenn la won bii moom mo len sonal mo don def opération rëbb dëmm ngeen ne da ngeen koy rey mais mo ñom na il faut se soulager gouvernement bi ne ni sumi sen seen mbubb na alhamdulilah tuez-le tuez-le tuez-le c'est un chien c'est un traître gars yi patriote yi bàyyi len ko patriote yi len ko gouvernement ne allez allez-y tuez-le tuez-le éliminez-le éliminez-le gars yi di xam talu mel ni ñu kii non il faut ñu rey ko rey ko mu dee rey ko mu dee rey ko mu dee boobu laa gëj def opération rëbb dëmm boobu lañ gëj a dugg ci seen silim yi ñoom boobu lañ gëj a wax seen belefete jabar yi boobu lañ gëj a wax seen doom yi boobu lañ gëj wax seen ndey yi seen baay boobu lañ gëj a wax seen seen toj-toj ñuy def boobu la fa lépp jeex ñu kontaan ci ñoom parce que ñoom lañ bëgg

comme nous, Ousmane Sonko vous a parlé des audios Frédéric vous <laughs> ay audio ngi vous fi audio fi Frédéric Napel, wax lu je wax porter plainte Ousmane Sonko sax ils sont prêts à le tuer bu deful luñ ko parce que il détient beaucoup d'informations lépp lu ma amoon ci information ci bureau doyen des juges Frédéric en appel mais yéen xanaa war ngeen jaaxle doyen des juges buy dem Inde Mollah Morgun toog fi wax leen ne est-ce que yëg ngeen ne doyen des juges eh, mi ngi Inde mais loolu man maa leen ko fi waxoon nii dangeen fàtte loolu leen waxoon ni doyen des juges Maham Diallo mi ngi Inde mais noo ko xamee dama dama dama imaginer foo leen information boobu mais man maa leen ko wax fu me ko mais Frédéric n'appelle m'a dit que ma instant yi platon lépp xam tout tout parce qu'il était là Le platon doon xam et moi instant yi dañoo arrête affaire parce que dañuy préparé wu mystiquement balaa recevoir Ousmane Sonko Moi avant ñoo woo Ousmane Sonko dañuy préparé dañuy préparé au gars yi dañu dem Inde ma ah Inde <laughs> Inde hein? mais mon, mon dafa bañ Ousmane Sonko de beaucoup Ousmane Sonko hein? déedéet. information bu la koy jox c'est pas pour lu arranger Ousmane Sonko lu bañ Ousmane Sonko day wër di yàq Ousmane Sonko moom moo ma jox information boobu Maham Diallo nu ma xamee ni Maham Diallo dafa dem Inde ma ne ko Maham Diallo ku mu àndal ci la ma expliqué ne Pape Amadou Diouf procureur ci la ma expliqué ne moom ci lañ ànd ki nga xam ne mooy ma cuucu fay et tout ça moom moo jox information yooyu. bu Ousmane Sonko ñëwé ci euh, bureau des juges def fa li def wala wax li wax yépp bu ñu paree mu yanu PV yëpp ma na ma xol sa email mu ubi sama email gis door ma fi may xol <laughs> gis nga Ousmane lu wax fi di wax fé ci conférence bi non c'est pas bi mais pourtant ma ngi leen don jox information te wono woo ben yoon ni Frédéric Napel malgré mi ngi may sërëxal ay affaire pour ma sank Ousmane Sonko mais information yi bi leen joxe musuma Ousmane Sonko musuma cee sànq Ousmane Sonko non Frédéric Napel a trahi a trahi je peux plus jouer avec lui il a trahi mais il m'a dit wax naa leen li ma wax nee na bu deful lii dañ koy rey man maa leen ne ma cuucu fay ak maa xam jàllo ne après Sonko ñëw gis naa ne saafara beeg nangam mais man maa leen préparé loolu maa préparé Sonko avant moo dem bureau doyen des juges maa ko préparé nag mystiquement di nga fa fekk ay mbir di nga fa fekk ay saafara di nga fa fekk ay xoryande ay ay ay ay mbir kan moo ko ko wax eh, man maa ko wax sénégalais yi di am information yi à temps réel bu tàng jër mu mi di xayam-xayam yi ma taxaw te pourtant jaxase na ci ay mbir pour ma yàq Ousmane Sonko musuma yàq Ousmane Sonko donc man Ousmane Sonko laa mos a focus comment sauver ce soldat là nan lañuy nat bu ñu jaxass affaire ñu jaxass affaire bu ñu ko ñu lepp ak nan ni lu ci des tout ça nan la xamé carte bi mo ñu bëri na non moi la est-ce que carte bi monté woko <laughs> Frédéric Napel, moko pas ci lalam amul jabar amna fukki jabar ak ñaar fukki gel yi mu un doom xamna respect à Frédéric Napel takk na jaay takk di fase di takk di fase di takk di fase am fukk juróomi junni doom yu Frédéric Napel n'est jamais n'a jamais été un commissaire il n'a jamais été un commissaire Frédéric Napel a été un militaire nek Thiès di fa liggéey déserté daw dem Casamance daw dug Guinée-Bissau gars militaire militaires yi di ko wër c'était un déserteur moom moo ko wax moo ko wax ci gémmiñam j'ai les audios di ma expliqué bu mu déserté jaar Kaolack di ma expliqué ça après gars yi dégg ci rajo bi rajo armée bi que Frédéric Nappel dafa déserté daw seey mu dem Guinée Bissau indi fa benn gel dëkk ak moom am moom ay doom dem Libéria ca guerre ba yanu fa benn libérienne indi ko am ak moom i doom toroxal ko ne ko empoisonné grand mu nekk commissaire wax Frédéric Napel nan la Frédéric Napel a été en Casamance en tant que simple policier il n'a jamais été commissaire Frédéric Napel dafa dem Gambie fa def ko ci sac au dos di traverser pour dem Casamance ñu japp ko fa ak yamba dugal ko ci kaso bi moy premier kassom mom moo wax premier kassom Yamba, saagu yamba au dos ñu ko Gambie mu j'ai croupi en prison en Gambie j'ai subi l'enfer c'est le gouvernement sénégalais moko sauver jamonoy Abdoulaye Wade gars di ci taxaw taxaw gambi la ñeuk tuddé kaso ci yamba fa la daano croupir fa en prison ñaari gouvernement gambien bi Yaya jame ak euh, Abdoulaye wad je sais pas di lijjanti lijjanti lijjanti la Frédéric Napel guen ci lañ ko dàqee dafa bëgg ngantul ponkal ponkal té il a 60 ans presque ak ay doom yu bëri ak jabar yu bëri yu ñu fase ñoom ay nekkaale yàmbaa man maa ko wax xam nga dañ mun a porter plainte Nappel yàmba lañ ko jàppee Gàmbi teg ko ci kaso bi mu pareeti jóge foofu ñëwaat nekk ci affaire yi dem Casamance toog fa ñu dem jël ko en tant que euh, ni ñu koy waxte snitch ni ñuy woowee snitch sax euh, indicateur fenkat Frédéric Nappel nekk indicateuru police nekkul policier de indicateur di jàpp booy yi di dugg ci baar yi am Casamance di dugg ci baar yi di dóoraate di agressé di sàcc xaalis jàmbur yi mandikat yi loolu la doon def Frédéric Nappel Casamance di dugg ci baar yi en tant que indicateur ah yor ay euh, carte policier tudd policier indicateur buñ ko dàqee yamba gi tejj ko genn indicateur muy dem ci bar yi ak jaay ko to yamba yi di nangu xaliss ci ñom nek bandi di nangu xaar indicateur fofu la xamanté ki nga xamni mom moy Maham Diallo parce que Maham Diallo a été procureur juge à Ziguinchor fofu lañ gaañante wo mu nekk dealer buy dexal Maham Diallo ay soxlaam foofu la gaañ noog Maham Diallo tout ce qui est sale bu ñu jàppee jaaykatu yàmbaay yi jaaykatu drogue yi Frédéric Nappel ci boppam ma ak Maham jallo Frédéric Nappel moo doon récupérer drogue boobu noonu bu ñu doon récupérer moom di ko <laughs> di ko jaayaat donc Maham Diallo ak Frédéric parce que Frédéric dafa bëgg doole ay bëgg doole bëgg bandi bandi lu ay dama lay ray man bandi laa moom yooyu moo ko neex tout son discours sax dama lay rey man bandi laa man agresseur laa man nangam nangam dafa bëgg do dafa mën a bëgg doole donc moom ak Maham Diallo c' était en Casamance lorsque Maham Diallo était juge en Casamance à Ziguinchor foofu la ko Frédéric Nappel xam muy jaay di revendre drogue yu ñu doon jàpp di top dileer yi moom moo ko doon Maham Diallo Maham Diallo dem après mu demat casamas Maham Diallo ñëw Ndakaaru ah malgré ñu ko bolel ñep mu mu laaj Frédéric napel parce que Frédéric napel mo fi nek kuy bande bande lu xam nga nangam lool motax lool loolu Sonko di wax tay mu woolu ko depuis la euh, depuis la euh, Guinée dëkkuloon Guinée de daf ko fa fekkone dafay dem Guinée di ñëw ay événement xam ñëpp xam nañ mankaañ yi seen mbokk yi ñu Guinée Guinée équatoriale loolu moo tax ma ma moom bi nga xam ni maa xam mi ngi réclamer Frédéric Napel mu fekk ko foofu Frédéric ñëw fekk si ko donc lañ doon def Casamance yëfu banditisme yooyu loolu lañ nekk di def ndakaaru Frédéric nekk ak maa xam nekk nekk di liggéeyaat sale boulot loolu moo tax Sonko ne maa xam Frédéric mooy wax maa xam naan ko nañ ko tëj nañ tëj Ousmane Sonko nañ ko waay nañ ko damm caabi bi nañ nangam ak nangam Guinée Bissau loolu moo ko indi dëkkul Guinée Bissau moom ak <laughs> Frédéric depuis fële la léegi nag Frédéric lañ ko jàppaat deux fois benn bi nag fii lañ ko jàppee Sénégal Ndakaaru Njaay jal Jóob comme moom du militaire du dara mais dafa yàgg foo lay def ci foo lay dox Frédéric rek dafa fekk ab accident accident Dakar ab tubaab bu accidenté keneen ñu tëdd tëdd foofu Frédéric ñëw ne leen moom mili eh, kii la policier la naan day def constat Frédéric ak fit gu mu yor moo tax mag Ousmane Sonko ne leen mun na dafa am fit tàppet la mais dafa maanaam am na doole am na doole mais dafa jeexal te xam nga mooy dafa yàgg bëgg affaire rébellion quoi mais dafa am fit tot def katu la toj ñoom ba rek Frédéric fekk ab accident ñi gars yi di teg ñuy xaar pol Frédéric ñëw fekk ko tombé dox ba taatam tàng rek mu ñëw fekk li lan la gars na ne je suis policier naan day def constat xam la mu ñuy def oto tubaab bi la Frédéric dugg daw ak moom daw oto bi sàcc oto oto tubaab bi oto tubaab bu accidenté Frédéric dugg ci arrière te për ñi ko doon dox ba yegg si foofu rek tëppal ñu ko topp oto ba yóbbu oto tubaab ba gendarmerie ñoo ko doqe daqe daqe ba ay côté rond point Liberté 6 lañ ko jàpp Frédéric Nappel sàcc oto jàmbur ñu yóbbu ko kaso rëbës xam na ko bu baax mu tombelu fa malade ñu yóbbu ko pavillon spécial ay mbokkam di ko seeti muy yuux naan lañ ma dee maa ngi bëgg a dee eh, mbokkam yi génn ne dañ koy cotiser tout ça ma Frédéric Rappel maa expliqué ça mbokkam yi di ko cotiser loolu pavillon spécial la mujje accident de Paolo un français moom la Frédéric Rappel sax ci oto Paolo bi daw ak moom ñu jàpp ko ab bandi la <laughs> fit toj toj rek lay def dof wérut loolu la def te loolu pavillon spécial la mujje feebar ay mbokkam ñu leen di woon nañ cotiser leen ko Frédéric ne ngay cotiser pour ñu ñu koy cotiser pour mu ay médicament ak yooyu pavillon spécial Frédéric dund na loolu tëj nañ ko Gambie tëj nañ ko fii léegi loolu papa bu dee ke bu dee euh, Babacar Touré Kewelo loolu la wax xaw ma ban la ci wax ba dégluwuma ko bu dee am na benn bu mu ci wax ci yooyu mais loolu dëgg la loolu dëgg la

Euh, procureur doyen des juges mais ñoom ñoo ko woon ne ko demal porter ji plainte par force mu dem porter ji plainte ñu jël plainte bi dugal dig dem jëli Babacar Touré Kewolo mu toog këram ñu woo ko ne ko kaay ah lan la waa kaay noo xam jàkkaarloog moom muy muy fen kii di fen ñuy fen fen fen munu ci dara mu ñib ñibbiwaat instant yi mi ngi toog këram de tekk la def mën a farax génne kartam badjim Frédéric du génne na leen ngay fen bii du badji bi de Frédéric teg patgem ci kaw lalam foto ko kii jox ma mën a ah ok yow la man man maay garde corps Maham Diallo naan expliquer toute son histoire avec Maham Diallo ab ay espèce u mbalitu Ousmane Macky Sall yi taxawaalu di xool ku ñuy fooye ñoom caaxaan mais bu leen 2023 ñu pare ci am na leneen loo xam ne soxluñ ko wax yi Frédéric Nappel am na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen pour l'instant on sort pas les audios pourquoi on sort pas les audios de Frédéric Nappel comme nee na dafa nekk sous contrainte te ñaara fi am ma génn audio yi gars éliminé ko mu pare ca sey du yàgg sax gars yi rey ko fii gars yi rey nañ ñëpp kenn moo fi rëcc ci ñuy waroon rey moom mooy capitaine Touré moom rek moo fi rëcc dañ ko naroon rey mais il est très fort yàlla da ko may ku warte dee doo dee capitaine Touré rek moo fi rëcc te nan la rëccee mooy biñ koy wër pour jéem ko accidenté pour ray ko di wër di ko rëbb topp bi en filature bëggoon ko accidenté dañ ko doon mu mais am ay quelques xaritam yu ko xamal ci biir gendarme xamal en filature ñi ngi ci dans semaine bii nga dañ lay vendredi boobu bougé wul fu mu toog la toog génne benn photo bu mu nekkoon Touba da leen maa ngi Touba maa ngi Touba maa ngi nii di sëñ bi maa ngi Touba maa ngi tuuba maa ngi Touba maa ngi ziare sëñ bi jël benn photo moom ma ngi toog fu mu toog Rufisque ko tëju ci néegam sànni photo bu mu photo woon Touba ne la maa ngi Touba de mooy maa ngi ni kaay leen ray ma nag maa ngi ni Touba da daa toog maa ngi ni Touba maa ngi yuuxu foofu yuuxu bu doy waar la fa yuuxu alerte bu doy waar la fa def dañ koroon raay rey moom moom rek moo fi mucc ci enquête bi képp ku ci àndul woon ci entre Adji Sarr Ousmane Sonko képp ku ci àndul woon rey nañ la képp ku ñu reyul dañ cee ànd moom kese kese te dafa rëcc bu ne maa ngi Touba toog fu mu toog sànni photo Touba ba mel ni ku nekk Touba loolu kese la da doon dee yàlla moo ko dimbale moom kese ci des ci enquêteurs yi wala ñëpp ñu fa waroon il a joué si sensibilité etc., etc. Il a vraiment été très intelligent. C'est ce qui l'a sauvé. Rigal a accepté le sale. Rigal a accepté Nana vomissement ami. Le mot de point de la que képp ku ñëw accepté ils l'ont laissé que ku accepté ils t'ont tué donc l'affaire Ousmane Sonko Adji euh, affaire bu salte la romb na sax ay photo ay montage ak lu doy waar la te lépp dinañ leen ko wax incha allah comme ni ma leen ko waxee rek léegi nag tey bëggoon naa leen sax woon wax wax affaire euh, euh, vidéo bi tout détail par détail mais dafa am kenn ndeysaan tamit soxloolu may wax turam ku bëgg Ousmane sunk ku fonk Ousmane Sonko ku topp affaire yi démb dafa ma woo ne seetaan naa live bi da nga ne da ngay expliquer affaire détail vidéo bi man bu ma sañoon doo ko def léegi ma ne ko ah mu ma waaw da ngay bàyyi ba après procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang parce que fu nekk nii boo détaillé lépp rek boo ko détaillé rek day yàqu parce que bu ñu demee gis lépp nga wax procès ba na mu nar a demee tout dootuñ fa dem dootuñ amati yaakaar dañ nga préparé nga sénégalais yi ba pare dootuñ amati yaakaar ci loolu yàqu na. donc comme nous fu ne ni ci bii lañ am pour l'instant, instant toogal xaar leen bu procès Mame Mbaye paré, paree rek tous les jours del génn di ko détaillé benn par ben, ben par ben, ba bañ ci ba le 18 mais pour l'instant, instant defal tout defal tout ba nga xam ni euh, bàyyil gars yi nekk ci procès Mame Mbaye Niang bi bu gars yi le 6 le 7 le 8 Tangal, ba mu tàng gars yi dañuy même même euh, lu mu tudd euh, li ñu li ñu joxoon Ousmane Sonko lañ cay joxaat duñ ko changé bu gaa yëngalul nag usmaan Sonko mën na fa jëlee trois mois euh, euh, euh, dina trois mois sursis mooy mu inéligible maanaam lu leen Sonko di wax naan ngeen génn génn leen taxaw leen jëmmal seen bopp dama ne leen déglu leen bu baax li ma leen di wax boo leen génnul tàngal dëkk bi la six ba mu tàng jër le sept ba muy boy jër le huit ba mu tàng jër bu fa Ousmane Sonko demee mun na sax bañ a dem dina fa génnee trois mois sursis du dem ci élection yi bu dëkk bi tàngul maa leen wax loolu du dem ci élection bu dëkk bi tàngee dañ koy dañ koy joxaat lu ñu joxoon rek dañ ko delloo pour yokkal ko ay mois le six dafa war a tàng jër le sept dafa war a boy le huit dafa war a dóomu taal le 6 ñu tàngal le 7 ñu boyal le 8 mu xalat doomu taal le 8 boobu bu ñu gi même chose la ñuy jàppaat te Ousmane Sonko nee na du ko jox fukki dërëm te waxoon naa ko fi live ne dem bu mu ko jox fukki dërëm du ko jox fukki dërëm de yéen xamu leen seen leader chaque jour ma wax leen ko Ousmane Sonko dafa am fit dafa am fit c'est pas pour rien ma leen di dafa am fit yéen a ma yéen a nekk Sénégal jege ko mais maa leen ko gën a xam. yéen a koy gis mais maa leen ko gën a xam jikko yu bëri ci moom man maa leen koy wax fit yu fit fit weesuwu ko bu ma leen taxaw fii naan bu ma doon Ousmane Sonko fukki dërëm du ma ko jox man bay ñaa ka non voilà loolu mun nañ koo jàpp loolu mun nañ koo créer problème non non loolu mun nañ koo nangam nangam ñi naan non ki dina ko cotiser kii dina xamu leen Ousmane Sonko xanaa yéen <laughs> di laa ngeen di gis waa ji rek fou ci fit fou ñoo xam ne am fit ba seen yaram bi yëpp fit la dawuñu dara ragaluñu dara dawuñu saa la yaay ndeer ça c'est Ousmane Sonko il faut ngeen xam ki ngeen amal affaire il faut ngeen xam ki ngeen àndal il faut ngeen xam fit bu mu am il faut ngeen xam fitu gaynde gu mu yor il faut ngeen xam ne kii du reculer il faut ngeen xam ko munoo ànd ak ku reculer di reculer munoo ànd ak ku dul ku dul daw ngay daw munul nek Ousmane Sonko du daw du du daay crazy nigga la faalewul dara li lijjantiwul tous dafa focus kooku moo focus bu ñuy wax waxu focus c'est Ousmane Sonko kooku mooy Ousmane Sonko focus il est très focus dara du ko jox Mame Mbaye Niang te du mujj fenn tous du ko mun kaa ñu taal ko la kaa ñu taal kaa leen ñu xeex loolu kese la mais munu ci dara luñ ko tous mënuluñ ko ko il faut ngeen xam ngeen amal affaire maintenant li may terminer mooy après nag. dañuy commencé nag live Adji Sarr Ousmane Sonko Adji Sarr Ousmane Sonko tout ba wax leen vidéo bi yére bi dàll yi nu etc. tout tout tout vidéo boobu nu ñu ko monté tout tout tout li ngeen n'a a gisi ji procès verbal bu ñu nar leen war bu ñu leen nar a liiral dinaa leen indil euh, euh, dossier médical bu ñu bu ñu préparé ñoom lépp naa leen ko tegal fii balaa procès bi ba leen demee ci procès bi day mel dicté préparé lépp di ngeen ko dégg dinaa leen ko wax c'est clair et net loolu man maa leen ko dig voilà maintenant lu ma leen di xamal moom mooy am na ay procureurs yoo xam ne dañoo pare yu ñu fa pare indi moo Ousmane Sonko a beaucoup parlé ci procureurs yi dama leen di expliquer gis ngeen gouvernement bi affaire de bande de copains bandi la bandi xam nga wax naa leen Frédéric Nappel doomu ndayu ma xam jàll ba maa xam jàll jël ko def ko garde corps ma génneel la carte garde corps ba <laughs> tegal la ok Macky Sall tam dafa ay nitam yu mu nekk ndool yàgg na depuis saam Macky doomu ndey Pape Hamadi Diouf Macky doomu ndeyu n'est-ce pas euh, euh, Hamadi Diouf procureur Hamadi Diouf Bassirou Gueye doomu ndeyu Moussa ca lycée Thiès Moussa doomu ndeyu Cheikh Wade ca lycée Thiès ñu xamante bu yàgg Macky Sall doomu ndeyu euh, euh, nekkoon euh, doomu ndeyu général Mbaye Cissé ki mu def général tey ca Saam di doxaan Maimouna Sarr ministre donc ci lycée donc ñu yag lañ ci doxaanante bu njëkk ba ci and bu yag ba ci nanum ataaya ga non je vous le plan leen di jox loolu mom tan xana dé rek Le plan leen di jox lépp la leen wax lépp je tiendrai mes promesses tout loolu mom bo leen tëddee naloo leen ma ngi fi daw ma daw ma la vie va continuer avant tout après tout ça donc ne vous découragez ne vous inquiétez inquiétez pas ma leen di tégal benn par benn benn par benn ben par ben noté len dawuma ci sala yaay nder donc Ibrahima baxum gis ngeen sal bulo bu meuna def xam nga Ibrahima baxum bu bu ci es xam fami Ousmane Sonko yaayam de ci bu muy febar jabar Ousmane Sonko di togal Ibrahima baxum di wax ci Ousmane Sonko melni musuko gis <laughs> kon xam ngeen ni kooku parane pour sal bulo boo leen amul ay avocat yu mën a def saal bu dinaa leen wax ni avocat yi ñu jël yëpp dañoo pare pour rey ñëpp wala ñu rey leen ñoom Ibrahima Bakhoum góor jigéen boo xam ni góor jigéen bu mag a mag a mag farum Nicolay Nicolay kooku loo ko jox ci salté góor jigéen bañul dara nañ ko wante tee nag ku dem ba doon góor jigéen ku yeb yàlla ba doon góor jigéen kooku faalewul ay affaire procès Ibrahima baaxum s'en fout loo beaucoup de doon que ku ñemee dara ok ne vous inquiétez pas même sa sa femme mon Ibrahim Bahoum, sa femme s'appelle Ndiémé Mesek. Ndiémé Mesek. Mon ci papa, avocat, la magistrate la la femme de Ibrahim sa femme Ndiye Mesek, avocat au service du du tribunal mi tribunal de Dakar troisième mariage très impliqué ci Ibrahim Bakhoum dans l'homosexualité avec ses histoires euh, de de trafic de drogue et de corruption dans la magistrature ku def loolu dana faale ay affaire boo ko joxee procès Ousmane Sonko a dit ça. Le day dóor tout. Il ci un homme nañ ko ci trafic de de de de cocaïne ay bateau cocaïne il mu Il Ibrahim Bakhoum le procureur jàpp nañ ko Eh, impliqué wu nañ fi ci corruption <laughs> mais kooku noonu tay boo ko joxee loo ko jox da koy dóor parce que day juutu di buus puuf ñu teg ci kan Amadou Diouf Amadou Diouf yàgga mandi wax naa leen ko Amadou Diouf yàgga mandi wax naa leen kan mooy Amadou Diouf Pape Amady Diouf doomu ndey Macky Sall loo teg sàngara mu naan ko whisky set mu ne ko teng teg bitel bi jolu tat lay def di lambaatu bay lambaatu mindaanam tat di xeex ak jabaram am ñaari doomu yuy lakki yu ñuul kooku di lakki tubaab kese ah ñaari doomu jigéen waa Kaolack Saam Amady Diouf sàcc ay terrain wu jàmbur ba Ablaye Wade nar ko dàq mais loolu yëpp expliqué naa leen ko un dossier de 300 millions à la cour d'appel de Dakar na ron ko dàq si c'était pas Macky Sall dàq nañ ko moom Hamidou Diouf procureur bi Macky Sall moo ko sauvé ñu mujj ko yóbbu Kaolack bàyyi ko foofu mu dellu Kaolack frère bu mu bokkal ndaay ak bàyyi sàcc ay milliards millions ci ay banque banque à crédit mu sauvé ko Diouf frère bu bokkal ndey ak mu récupérer dossier libérer frère am kooku ko jox affaire Adji Ousmane Sonko mou kay non. am ngeen ay procureur salté Ousmane Sonko du vous vous ay magistrature bi ay ay non Ousmane Sonko il est super intelligent il parle en connaissance de cause il a affaire à des démons à des bandits de grand chemin, à des criminels, à des gordigens, à, des nankot sangara. Ibrahim Bahoum est un gordigen, Hamad Diouf est un soulari à Gamandi. Mouniou Ini Boyam. Yéen xam leen lu xew ci dëkk bi xana ay gaay yo xamni Abdou Karim Abdou Karim Diop <laughs> non rew mi boy saway bo leen ko taal rew mi day c'est fini boo ko taalul Abdou Karim Diop booy bandi di waa Kaolack moom it te nekk booyu Hamadi Diouf di ko defal liggéey gu salte lépp lu am Kaolack ci salte ci tribunal ba moo ko doon liggéeyal moom Hamadi Diouf lu Hamadi Diouf sàcc Abdou Karim Diop ko loolu motax mu jël Abdou Karim Diop indi ko def ko procureur mom la mom la Ousmane Sonko nan porté nako plainte et cetera yeen di dege ko kaw Kaolack la kaw Kaolack la boy tiofa yag bandi bandi bandi ko nit ko criminel kok moy Abdou Karim Diop Hamadi moko indi parce que boy suppléant Hamadi la won Hamadi moko indi mu ñew joge Kaolack ñew dakaru Hamadi Diouf jox ko place am yek dem cour suprême baye ko procureur koku lu ko Macky Sall bu ko Macky Sall non poubel tay mu puub Macky Sall nako porta porte ko mu porta bu ko Macky Sall bëggoon porte porta porte day kay porta porte Hamadi Diouf doomu nday Macky Sall Macky Sall ko porte porte mais boyam Abdou Karim Diop boy bandi bu ko Macky Sall porta porte Hamadi Diouf da koy lek bay martade ni xam di kii nga xam ne moom mooy Abdou Karim Diop kooku du nit de moo leen gën a sadik ñoom ñëpp te xamadi moom moo ko sant Macky parce que ay ñoom booy ñoom Macky la xamu ko xamadi moo ko ne bàyyi ma woo booy bi lu ma tëgg moo ko moo ko raxas lu ma sacc moo ko raxas drogue bu ma sàcc moo ko jaay ñu indi ko moom mu doon procureur mais dafa am lu xew ci kii moo Ousmane Sonko wax len dafa am ay changement Amady Pape c'est un c'est un individu abject pour doy war sax mais dafa am luma len di di fàttali Amady je euh, euh, euh, Abdou Karim je le connais sa maman travaillait au dispensaire de Medina Baye ils sont de Thiofat sa maman travaillait au dispensaire de Medina Baye mais dina leen expliquer ben affaire bu grave bu am té lepp ñom ñoy santaane ñoom ñoo koy santaane Abdou Karim dafa fekk euh, Abdou Karim suppléant guerrier la ci ay affaire mafia Abdou Karim mu ngi tudd Amary Faye Abdou Karim Amary Faye moo ne suppléant procureur deuxième procureur xam nga du mu ko def dafa ne dafa ne Amary lépp loo ma sant bu ma ko bëggee def tànk Amary fay mi ngi fi du ma ko liggéey daf ma yàqal parce que day wër di wax ñu jël amari fay génn fa tëbal laaj leen ma kan lañ ko indil góor <laughs> gi dañ garaaw de Saliou Sy lañ ko indil zaf comme la ñu woowee zaf Saliou Sy Saliou di zaf kooku moo ko remplacé kooku du naan luy ban luy boon mu dox ko luy yamba mu dox ko kali box tat lay def tat zaf mo fa nek Abdou Karim Diop suppléant zaf la <laughs> mom la changement bu mujj bi ngeen xamul ngeen gis ko Ousmane Sonko leen koy wax ne amna changement ci magistrature bi changement bi loolu la amari fay lañ teubal ñu indi zaf doxkatu yamba bi Abdou Karim ne moom Zaf la fi soxla ndax lu ma ñàdd mu rendi Zaf taat lay def taat kon donc Macky Sall indil ko Zaf léegi Zaf moo fa nekk moom mooy suppléant wu Abdou Karim Diop Saliou si jàppale noo bi Saliou si di Zaf Zaf day saf lay def nii lay def teg ko bon ba mu fees tep tep tep di ko raab di dóor tap tap tap def nii génn sax nit ñi ne kan nga jàkkaarloo mu ne kii kan la ñu ne ko non Sonko la waaw Sonko xaw oh, kii nga ne man ngeen ne kii Amadou ne Amadou de Amadou Diouf de Pape Amadou Diouf leen xaar ci kaw zaf lay jàkkaar lool Abdou Karim Diop ñu fas yéene def sale boulot bu ñu rendee jox Hamadi Hamadi supp jox Macky Sall très bien Amari lañ fa jëlee Amari Fay Fall mom lañ fa tebal Zafa ñëw <laughs> nii la ki ñu dañ leen di détail détail par détail boy lu fi dess sénégalais wax ju du bari lu fi dess moy nañ ful la yok fayda ciéré do li ñeex billahi buñ ko deful ñak Macky Sall plan bi yep pion yep tout changer parce que dafa bugg a changer gars yi ñooy wax da ngay ñëw jox ma paaka man ne takk ne waaw waajaa ngi ñëw ren di man la waa ji kii yoole maan la de demal indil ma kee nga xam ne moo may ñàggal ñoom noonu lañ koy def Macky Sall jël tëbal la parce que nee na yow dañ naan kii yoole maan la ñu tëbal la mu dem indil ko nit bu pare pour kii jeex na tàkk noonu la dafa Macky Sall dafa jël Hamady Diouf jox jaasi paaka jël euh, euh, ci Maham Diallo jox paaka jox jël Abdou Karim Karim Diop jox paaka Abdou Karim Diop gis ni saa waay Amari bi mun na ko yoole mun a indil ma zaf tat lay def zaf danaan tat waaw Amari Faye eh, Tamba lañ ko yónni li ci àll ba lañ ko sànni tat la zaf di def day ñëw dóor këll yàmbaam taxaw moom tamit zaf ñett ñoddil ma zaf ñadd mu rendi jeex na takk donc ñun ñoo fi war a taxaw sax di leen fi xaar ñun ñoo fi war a taxaw di leen fi xaar ay zaf taxaw war a jàkkaarloog ay Ousmane Sonko ay Hamadi Diouf ay ay ñoom Abdou Karim Diop ñooy taxaw naan dañuy gérer non mais Sénégal nee naa leen dinaa leen wax lépp lu xew ci affaire yi ba nga xam ne balaa boo leen ñëwee ba fekk leen fa bañ taxaw amul sax séeréer ku ñuy ñëw na nga indaale ñu ay quatre xeer quatre xeer deux xeer ci kanam un deux deux xeer xeer indi leen poche yoo xam ne quatre poche xeer ray fii xeeru ray fii xeeru ray fii xeeru ray fii ñëw leen tirbinal yi ñëpp. incha allah l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko ñëw leen tribunal yéen ñëpp ak quatre xeeru raay dem leen ci raay bi ngeen wut xeer wow yi nga xam du toj fii un deux bu fees yu yu fees yi trois quatre beleen de wàcce ko seen mbubu taxaw def nii lima leen di expliquer bés bu leen gisee ñu naan leen wéy seetaan leen da koo violé nii la demee bu nee tab rek lépp laa leen di expliquer nee leen nii xeer yi ngeen ne fekk fa ñoom zafak ñoom baaxum ñoom Hamadi Diouf ak ñoom Abdou Karim ak leen bañu sedd guy deew kaña voilà donc foofu laay foofu laay jeexale gars yi dañ yokk fulla yokk fayda dinaa leen expliquer lépp li ngeen di dem gisi ji di ngeen ko gis dama ne leen bés boo leen gisee ngeen toog dem tribunal ku bu kenn demee loxo neen dem leen wuti ay xeeru raay du toj di nga je loolu mu dal day toj xeeru raay ak loo ko dóor loolooy toj xeeru bi du toj ngeen def ci quatre benn fii benn fii benn fii benn fii boo leen demee gis zaf mu toog jàpp leen ni toog na këll yàmbaa boo leen fekkee Abdou Karim mu toog jàpp leen ni nee na tuy xam xam ni Diouf toog à côté ne leen nee na nañ baaxum laal nañ ko ci taat ba mu tàng et cetera ñu ñëw toog préparé wu leen danaa la boo leen gisee ñu ne écran géant ñu dinaa leen wax lépp boo leen gisee nit bu génn di def nii na na lépp naa leen ko expliquer mais ci kanam maanaam après après kii bi rek rocc leen rocc te bum bum bum bum moo laa waxoon nañu lii ah yéen film bi ngeen wax bum bum ba bañ sedd guy ngeen taal foofu ba parce que góor jigéen boo ko taalee yàlla la ci ngeen taal ko ba mu tribunal ba mu tàkk ngeen génn doo leen génnee noonu da ngeen di dóor kaba yi ba ñu seet du kuy ci biir deew kañ gën leen gaa yëpp génn ngeen taal ko parce que ay góor jigéen ngeen faray ay tokkut yàmbaan naan ay caga ay ñoo ñoo fa nekk ñoo toogoon naan dañuy jugé waate ku leen gën ci ndey gën leen ci bàyyi gën leen set donc préparé leen sama gars bu baax a baax incha allah in commencé nañ marathon bi dinañ leen tegal lépp lu xew lépp lu xew de toute façon comme niñ ko waxee bu fekkee ni foofu laa koy tëjee bu fekkee ni li ma def li ma doon def intention bu ma ci jëloon du yàq sauver la am information la am naa ko ci bu fekkee ne am na ñoo xam ne dama leen cee tooñ te yëguma ko maa ngi jégalu bu fekkee ne am na ñoo xam ne dama leen cee wax mu metti leen maa ngi jégalu bu fekkee ne dama am ñoo xam ne rafet lu yéene bu rafet laa ci am yéene bu rafet njort laa ci am awma ci woon pour yàq dara bu fekkee dafa am lu leen metti ci loolu maa ngi tuub di jégalu di leen wax ni bàll ñu àq ñoo bokk benn combat ñoo bokk benn objectif moy Sénégal Dim ci kanam fight djel Ousmane Sonko tek ko fi fal ko loolu kese musuma djel intention Yak ni Ousmane Sonko ni wax ko lu ñaaw dara amu ci mais bu fekké ne am lenn rek lu wala yaakar ko ci man di djégelu ku ñaan yalla sax boko ko baaloo mu balo kon lepp lu ma xam ni togn na ko wala metti na ma ngi leen koy wa rahmatullah taala wa one love jaarama et on commence les opérations rub dëmm opération rëbb dëmm tous les samedis one love and